def lim def yëpp macha allah njabootam bu tedd gi bind naa leen fii xam naa dama leen lim ñëpp wax naa ne soxnaam suñuy wax eh, eh, wax sànq ci lew moo ñëwutoon Xadi Zeynabu rakkam la ñoo bokk ndey mooy wàjjuru Mati Ñas mi maam ah, mi xaaji ah, Ahmad Ahmad Ahmad Niass te am doon denc Aïchata Niass moom it moo doon soxna si sama sëriñ ba maag Oustaz Baye Mar al muqaddim al xaaji Karaw kooku it doomi soxna si doomi xaaj Babacar la ah, ak Seyda Zeynabu Niass mi bàyyi limaan doon denc ak Seydi Soxna Faati Niass nag moom mooy wàjjuru ilimaan bu tedd ba suñ borom xam-xam bu mag ba taale baay bu jeex ba lool ci baay di Cheikh Ousmane euh, Fati Ousmane Niass gën a siiw ci Ousmane Fati euh, amoon na moom sëñ Ousmane moomu sama sëriñ boobu amoon na rakk euh, ju jigéen ju ñuy wax Marème ju mbokk amoon na itam keneen ku ñuy wax Fat Kiné amoon na itam ku ñuy wax maam Fati waaye nga gis ne ba tey soxnaam suñu wax Zeynabu Gueye mooy waajuru borom xam-xam ba adib ba muy xalaatkat ba philosophe ba alxaaj Mouhamad Zeynabu Thani muy suñu nijaay moom ca kawrax ca Medina ñu nga ñu ngi ziar ñu ngi ndokkeel suñu jarbaat cheikh cheikh euh, cheikhu taawam moom it ci cër bi ak mbooleem njabooti cheikh alxaaj Mouhamad Zeynab ak euh, tamit moom moomu soxna Zeynabu Gaye mooy wàjjuru kii may wax sànq na leen mooy coobare gi jeex tàkk ci Mawlana Cheikh Ibrahim bëgg yàlla lool lap ci yàlla aarif boobu yàlla ku fi yàlla yàggal may ko wéere muy Cheikh El Hadj Hussein wàjjuru Cheikh Mouhamadou Moustapha mi doon wax ne maag mooma bokk lépp yàlla yàlla ko fi yàggal ñëpp ak soxna Khady Abdou bi moom nag mooy wàjjuru euh, El Hadj Hassan Khady faqih bu mag ba alim ba ku amoon xam-xam la ci moom laa njëkk a déggee baatu lixaawu ci arab xaw ma woon lu ci arab ci kattay ñeseen mu ne ma utal ma lixaa ma ne ko nijaay man xaw ma lu lixaa bi mu ne ma xanaa jàngu hamziya wala udu shuqa anhu lixaawu te gis ma maanaam Cheikh Ibrahima ni mu formé ma alxaaj Babacar ñoom ñëpp ay cadre la euh, yal na yàlla yokk seen leer moom ak euh, alxaaj Xasan Xadi moomu ak Seyda Maam Xadi suñu yaay ci daara maam Seyda Baye Mar ci ci kër Cheikh Xadi Babaye Euh, ñu ngi ziyaara njabootam moom it seen njaboot ñoom ñëpp ak Seyda na fii am na soxnaam suñuy wax faat kanji wala faat ndeñ moom amul ci kër gi am na soxnaam suñuy wax astu am na fa Seyda yaama xadi xadi euh, astala bëgg wax am na fa ku ñuy wax Seyda yaama xadi mi maam amul léegi caam doon denc ak Seyda Roqi Ñas mi nga xam ne nii moom la sëñ Ahmed Daam al Xalifa doon denc yi alxaaj Babacar daal ci gàttal mbokk yi dundam xajut ci guddi ni ma leen ko waxee woon ñu ngi yemale foofu suñu waxtaan ci moom li ci des yépp mu ci baxs bi danaa ko jox Cheikh Ibrahim ni Cheikh alxaaj Ousmane ni ma ñaanee woon ne naa ko bind bind naa ko dinaa la ci jox nusxa yow mbokk yi wa kullu aam wa antum bi xeyrin wa salaamu aleykum wa wa barakatu jazakallahu xayran jazakallahu xayran ah Ahmad Boucar conférence bi leer na leeraay goo xam ne mat na matane goo xam ne commentaire bi du passé ñetti tomb yu ndaw rek ndax li nga wax ne moom baay Maam Alaaji Abdoulaye ma ñëw Maam Alaaji Abdoulaye daf leen a yaree Maam Alaaji Abdoulaye daf leen yaree dëgg donte dëgg dafa feeñ ci wax ko mu jëm ci seen papa foofu Cheikh Ibrahim feeral na ko fi ndax Cheikh Ibrahim biñ ne ko yow sa baay mës sa julli xamdu te yow yaa ngi julli di xamdu mooy leen yàlla yónniwut ci man suma baay yonent yàlla Muhammad la yàlla yónni ci man li nga xam ne moom nga wax ci ne acteur développement la kooku yaakaar naa ne Cheikh Ibrahima itam feeru na ko ca Taïba ak mbooleem taalibe yi fi ñu mosoon a nekk ci tund wi waaye nag li nga wax ci ma wax si jànke itam luy firnde keroog bi mu génnee àdduna ba nit ñett ñu ko defar defar ko ba Ibou Diouf wéyal leen aljanna yaa Roqi Njaay yaa Seynabou Njaay Seynabou Xayaar am ngeen kër ca lii na bi bàyyi bi biñ ko indee ci paron bi tegal ko fa bàyyi moo laaj Babacar moo fa jëkk te liy tegtal bi mooy bi bàyyi mu ne si ba sëgg fa yàgg fa lool moo jóg na ko Ibrahima yaa ngi bëgg a jaaxal kat soxna si dem na bu yàgg di mu ne ko ah nee na ma bàyyi xéeroon na ci kër goo xam ne ñoom ñëpp ci peru moom bisis ci buntu néegam bi fa lañ naan daan tegal seen ñam li pour mu xam ni mu demee na moom bés tegal nañ leen ñam ci kanam baay waaye ubbeeguñ baay dugg ci di beesal jàpp génn fekk bool bi jeex mu ne leen yàlla ana añ bi ñu ne ko jeex na mu yónnee rayal leen xar kon li nga wax dëgg la leer na moo tax biñ ci soli ci commentaire waaye nag délégation bi Cheikh Ibrahim ñi ngeen di ndokkeelaat eh, Moustapha Moustapha yooyu nii Cheikh Tidiane waaye am nañ porte-parole parce que Cheikh Abdoulah mi nga xam ne mooy borom coobara bi suñ bàyyi Alxaaji Ousseynou mi nga xam ne tey mooy xalifatu Alxaaji Abdoulaye Niass mu mag ci kaw suuf moom lañ def porte-parole mooy wax ci turu pare bi ki nga xam ne moom lañu ñu Cheikh Boucar doon wax kéemtaan yu rëy yi ak taxawaay yi te bi ci gën a neex mooy bi mu wax ne Cheikh Ibrahim boo jaaxlee da nga dajeeg sama baay ñëw ne ko lan la waxoon loolu la kooku bu ko neexoon moom ba Alaaji Babacar waxtu wu taxawee ne njaboot gi tey leen dal leen seen baay demul fenn parce que moom mi ngi jokkoon moom waxtu wu ne kon Cheikh Abdoulahi bismillah câble micro câble micro boy câble micro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 wal uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa baad mbokk yi gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi jël ndigal ci suñ kilifa nga xam ne moo jiite délégation bi ci ndigali Cheikh Hussein Aboubacar Abdoulaye Niass muy suñu mag Cheikh Ibrahima gannaaw bu mu àndee ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi ci ay gannaawam di ay rakkam comme niñ ko nekkee di di leen uutu ñoom ñëpp ci kàddu gi nga xam na mant gudd du doon lu may kàddu ngërëm ak sant gannaaw buñ ziyaaree ki nga xam ne moo waral lii muy Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu anhu Cheikh Ibrahim Niass laa ci namm al xalifa ku ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér yàgg jiite mbooloo mi naa lii mat yim fi samp yëpp mat ci kanamam di nuyu tey ziyaare suy soppee ki nga xam ne moom moo la sëriñ bi teg fii ci Dakar mu Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahim Niass nga xam ne moo ko uutu fii ci taalibe yi di teg nuyoo boobu ci loxo ki ko fi teewal muy Cheikh Ibrahim ibni Cheikh Mouhamadul Amin di nuyu suñ doomi bàyyi président Ansaaru Diin Malaw di ko ndokkeel ci jëf ji ci turu sëriñ bi teraanga baax na lool waaye def ko fi nga ko war a def ci la gënee wax dëgg yàlla te Maam Alaaji Babacar Niass ni ko conférencier bi waxee xam naa lu ñu fi wax ay répétition lay doon rek dafa fekk ne suñ mag yi dañoo bëgg a ñemeloo wax bëgg lu wax loo ay PC tout vocorat rek te c'est en forgeant qu'on devient forgeron loolu lañ ci namm ñuy jaxase pour ëllëg ñu mën a tari waaye li war a wax yëpp suñ doomi bàjjan Cheikh Ahmad Boucar wax na ko te wax na ko ni mu ko war a waxee te li mu wax yëpp dëgg la li ëpp ci li wax lu bëri sëriñ bi nettali na ma ko te nit du réeree boppam ma wax beneen yoon ba tey rek ne ñu ngi lay gërëm président Ansaarud-Din sëriñ bi kontaan na lool ci jëf ji Maam Laaj moom gannaaw bu ko Maam Laaj Abdoulaye Niass juree te daf koo jur ñaari yoon mu am sarax bu wér te sarax yombut juddu yombut yàlla koy maye bàyyi Maam Laaj Abdoulaye Niass baayam la nijaayam la li olof yi di wax dafa sangu ci géej gi layandi ko ci dex gi waaye loolu yépp nekkut xijaab mu nangul Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahim Niass dimbale ko joxoñ ko ànd ak moom bim naqadee nga xam ne dara xewagut waaye it bàyyi moom daan na wax ne laa ujaazi ihsaanin bi nisyaan man teraanga duma ko fayee fàtte te fay na doomam yi ba buuñaa leen yal nañu ko yàlla fayal Cheikh Ahmad Bukaat ñu ngi ndokkeel beneen yoon njaboot gi yépp dajee nañ ci ne yow lañ tànn pour nga waxtaanal ñu ci Maam El Hadj Babacar yow bi nga am mooy ñëpp nga nangul te yombut te it dangaa am kilifa te xaarima jaxate kala daan na wax ne am kilifa am na solo ku ko am am nga solo ku ko amut amoo solo moo tax nga mën a wax lu am solo parce que da ngay jëlee ci ñu am solo yal na yàlla dolli sa mëdët dolli sa tawfiix te taalibe gii ngay doxal sang gi danga koy teg fële bët bu set nga dellu ñangeen wan ñu ne ñu ñun nuñ man rek seen maam El gis la te lu amul cosaan rek lu amul démb rek existé wul mbir yi xëyut rek mel nii yal yàlla dolli sa tawfiix du mën a gudd dañuy def rek li nga xam ne yu mel nii bu xewee danañ ko def muy pour wan leen président ne leen kontaan nañ lool lool lool ci lii sëriñ bi bég na ci bu taxutoo nag ngantal yaram mooy teewal boppam fii xam ngeen ko xam na leen ku sa taalibe wér rek da nga xam ne coobar yàlla gi moom bàyyi rek la bëgg man damay waxtaan ak moom lu bëri léeg-léeg mu ne man sama bàyyi daf maa iir sama bàyyi sax mënumaa waxtaan ci sama bàyyi mënumaa waxtaan ci sama maam Alaaji Abdoulaye kon kooku dafa lab ci biir bàyyi ni ko Amady waxee léegi looloo tax ñu nit ñu sosu ci loolu di ko bëgg a bëggloo bëgg ko rek lañ bëgg xamul ndax sax mën nañ koo bëgg wala bëgg nañ ko waaye ñu ngi sàkku ci yéen loolu di leen di indil nuyoom ak ziyaareem di sàkku ci mi ngi sàkku ci yéen ñaan tey ñaaneen ngeen ñaanal ko yàlla di ko di waxee ngeen toftal ci seen ñaan yéen it yàlla bàyyee ko fi mu yàgg fi lool te yàgg ñu tëbb ci bàyyi ni may tëjee mooy rek wax ne ñi fi ñëw Cheikh Ibrahim bu Serigne Ousmane Faty Niass nga xam ne moo jiite njaboot gi di taaw ca kër ga te matee ko lool lépp lu xew ci famille bi Serigne bi dana ma oo ne ma ool bàyyi balaa def dara bu ko mateew toon sëriñ bi du def loolu parce que ñoom kenn moomu leen kenn defu leen ci poos te olof yi dañuy wax naan ku judd ci luy naaw boo jaar pët pëti boo ko defut jaaxal say mbokk ni seen bàyyi mel rek lañ mel duñu wax luñ gëmut duñ ko def kon bu ñu la tegee ci place bi rek da nga koo matee lépp nag lii la ko mooy mooy am kilifa ni ma ko waxee léegi yi mi ngi ànd ak suñ beneen mag Cheikh Moustapha ba tey di taaw ci sëñ Mamad Mouhamad Zeynabu Niass mi nekk Niassène mi ëmb di doon wax léegi Bukaar ne 1905 la wala 19 mu xam ne mooy taawu Mawalaaji Babacar Niass Cheikh Moustapha mi dend ak Cheikh Moustapha Xaadimu Salaam mooy taawam. ba tey mi ngi ànd ak Cheikh Ibrahim Niass bi Baye doon tudd léegi ba tey di taaw ci suñ bàyyi Mouhamad Zeynabu Niass. ànd ak rakkam Serigne Aliou Cissé Niass ba tey Cheikh Wack di caat di doom ci coobare gi Cheikh Hussein Aboubacar Abdoulaye Niass mi ngi fi ànd ak ñun alaaji Tamsir bi tey di set ci sëriñ bi mi ngi fi Cheikh Ahmad Aydara moom it ab shérif la waaye set la ci sëriñ bi ndaxte yaayam Cheikh Hassan Khady Niass moo ko jur Baye Alaaji Caam mi ngi fi di suñ doomi bàjjan Pape Ndaw mi ngi fi waaye it suñuy jigéen ñi ngi fi ànd ak ñun teew ci guddi gi ci njiital Seyda Sanjaay moom waa dakaar la xam ngeen ko ñëpp yëngatu ci ansaaru din li fi xew mi ngi toog ak yéen taaral taaral jotaay bi comme ni ngeen ko xamee démb ak bërki démb mi ngi ànd ak ay rakam ak tantam Seyda Maguette di soxna ci xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim Niass moom Serigne bee ko yar ci këram rajo Serigne Niass dénk ko Serigne bi mu teg ko ci daaro bu ko fa Serigne bi tegee ba léegi ma fa toog di góorgóorlu di muñ di dimbalanteeg Serigne bi ci lu fa man di xew. mu ngi ànd ak ba tey ay rakam Seyda Umu Kalsum di doom ci suñ baay Cheikh Hussein Aboubacar Abdoulaye Niass ànd ak ba tey Cheikh Mariam nga xam ne suñ baay aaj Mouhamed Zeynab Niass moo ko tuddee borom jotaay bi nga xam ne moo Mawlana Cheikh Islam Hadj Ibrahima ak i taalibeem ne leen kaay leen ñu bokk yiw wii nii ba tey Seyda Zahra Seck sët ci Alañ Babacar yaayam Sëriñ Daam moo ko jur sotti ceeb def ci la rek ñu seen génn kër la amul ñaari pàcc ñetti pàcc euh, Fatou Dramé tamit mi ngi fi Khoudia Ndaw mi ngi fi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla dañuy wax naan ku lim juum waaye doo juum dañ doon matal bu ma sañoon tudd ñëpp. ku mu bàyyi it ñu fàttali ma waaye daal sëriñ bi ñëpp teew nañ fi sama jarbaat tim mënuma koo fàtte Aliou Diop moom it dafa rafet juddu li ma jaaxal rek mooy bi ñuy ndokkeeli ëmb di dafa toog su fekkee maay seen nijaay nag jubal dem ndokkeel ko ñëwaat toog parce que wax na li war a wax soxna Aïda mu nuñ koo fàtte mu ko fàtte wala waa Ansaari Diin danañ ma ko fàttali wax dëgg yàlla mënoon naa doyloon ab sang la Babacar mooy sama maam waaye dafa def boppam taalibe yëngatu yu ngeen def ansaaru diin mu ànd ceeg yéen ak mboole mi rakkam ak ñi nga xam ne mi ngi dimbalanteeg ñoom ñu koy ñaanal yàlla di ko wax ne ko lim nekkee fii yëpp sëriñ bi yëpp na ko bi ñuy waxtaan di jotaay pour nit ñëwee fii mënoon naa yónnee ku ko defoon mu doy waaye moo déplacé wul boppam ñëw ba fekkee lañ fa wax mu wax ca lam xam ba pare jëf-jëf ju am solo li may tëjee rek mooy danaa ndokkeel ki nga xam ne tey ñun moo ñu nekkal Dakar wala moo nekkal Cheikh Hussein Aboubacar Abdoulaye Niass Dakar muy sama mag Cheikh mustafa Hussein Aboubacar Abdoulaye Niass nga xam ne am na nu mu fi nekkee woon noo xam ne danañ ko xeeb danañu xeeb danañ xeeb pay bi waaye sëriñ bee ko xamal yàlla xamal ko yi góor ñëpp di boo wax yee ñuy wax ba nga xam ne mënuñoo wax sax li ñuy dund teg ko fii ci Dakar képp koo xam ne da bëgg xam yàlla bëgg a déplacé wu mu ne toogal foofu maa ngi Dakar ndax sama doom mu ngi fa Moustapha te damay wax ne liggéey bu gën a rëy boobu amut walu matu xas di fii moo an asuqahum ila xadratil barrahimi naa loolu la bàyyi ñépp la ut si ci bàyyi jël xeet wi rek di leen yóbbu ci pay yàlla boo sell boobu muy dem ak a si di dund yàlla loolu la fi nekkee am na su yóbbante boo xam ne nag sëriñ bi jox na ko wax na ma bu mu ñëwee ba sànni kàddu njaboot gi naa ko ko jox mu wax ko ci làmmiñi boppam maa ngi koy jox kàddu gi mu wax loolu comme ni ko sëriñ bi sàkkoo ndigal moom jëfee rek te ñun benn kilifa lañ am amuñ fukki kilifa niñ ko santee moom lañ koy defee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum Serigne Moustapha Alaaji Ousseynou Aboubacar Abdallahi Niass euh, sëriñ bi wax na ko fii mu nekk ci Ndakaaru la mu waroon a nekk Medina rek la ko fi nekkee la mu waroon a nekk Taïba la fi nekkee doxu fi lenn loo xam ne lu dul la ko waajurum ba tege woon fii la nee na mu ngi sant yàlla ñu julli ci Seydina Muhammad nee na muy sunu xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahima Niass ak rakam ji topp ci moom di Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass muy ndokkeel imaamul akbar Cheikh Ahmad Tidiane Aliou Cissé di leen jox nuyu arif billahi cheikh alhaji Ousseynou Niass Aboubacar nee mu ngi leen di ci turu boppam di féliciter Cheikh Ahmad Boucar di ko wax ne ko congratulation ko pour anglais la nee na mu summeel mbaxanam ci meen ak ci deret maanaam ci Saalum ak ci Kajoor ak Bawol moom day dama bokk ak moom ñaari yoon xam naa ko man nii xam nga suñu bàjjan bu rafet jikko ba te baax lool ñu koy wax Aysatu Fall mi nga xam ne muy waajur Serigne Moustapha mam yéli ne la ko suñu bàjjeen Khady mam yéli ne la ko mam yéli mam Khady Fall muy waajur Seyda Nafisa muy waajur Ahmed Boucar nee na boo ko ñuy léeg-léeg daf laaj ne ko nijaay bi wala rakk bi ban ngay jël mu ne ko rek ba ma jël boo ma mu ne ma nijaay bi tam na moom moo ma magee waaye waaye sama xalifa ci dara waaye ñu dem nijaayam laa ci mel soo mbokk la ñaari yoon boo gisee nag suy wax fu muy wax ci fu mu jëm lu mu wax maa koy maa koy jot nit dafa nekk dafa am nit ku nekk ñetti ñeenti càll la moolu moo moolu fekk ndax kooku ma tudd léegi ko jëmen tudde mu di ko topp moo ko daan ko moo ko mas a woy le 14 juillet ba mu jooy xaj looloo tax fu mu lu muy wax boole ma ca kon nag ñu wéyal loolu nag ñoo ko lampee ci Mawlaana Cheikh Ibrahima jekk kaala rafet kaala borom gën bu yaatu bi moom day delloo paaka ca mbaram jamono ju ne ñu lay yow ne baay mooy borom jamono démb tey ak ëllëg baay day nee na yàlla wàcce woon beneen yonent bu dul Muhammad Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaye jamono day ma sàmm benn sàmm lu teg fas démb tayaale rek lu yàlla ko lu yàlla def baay di ko dindi mukk ko dindi mukk loolu moo lay wax ne baay moo wut si yonent bi sallallahu alaaji Ousseynou dafa am lu muy ah man mii ku xam Serigne man mii Serigne Moustapha xam ne damay nëbbutu rek nag def naa ñaar fukki at ak juróom maa ngi soobee ñëw ci ci Ndakaaru te waxoon naa ba sonn ne du ma teew tey waaye dañ ma poñe sama feeñ ni ba wax moo tax ma teew fa waaye man damay teew ci tànk rajo Seydou nee na dafa yee bëgg a yee salaat bërëbu maam Abdalaa Jàppalaay xelub li muy Serigne Moustapha wala ñu Serigne Niass nee na daa forme comité ndax tax mu liggéey boobu mënu ma ko lu may yéen ñëpp danañ sa jàpp di sàkku ay ñaan pour le raad de may nga ko rek may ma ko ñu ngi leen di présenté Cheikh Ibrahima Ousmane Fati ñett ñoo koy jox kàddu gi ndax jiite yëf yëpp yëpp moo jiite. bi ma waa Ansaaru Diin ñëwee ci man ne ma maam Aboubacar lañ bëgg a tuddee bis bi. mooy leen suñu kilifa ñun ñëpp mu ngi defar na ngeen dem ci moom ñu koy jox kàddu gi. salaatu wa salaamu ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa ashaabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi ddin subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta al-alimu al-hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al ali al azim yaa himmata sheikhi dur lana bi hada al mahdari wan taatifi bi nazratin tati lana bi zafari ñu ngi sant yàlla bu baax mbir mi du jël kàddu waaye samay rakk ne ma posté rek ne naa ci teg ñaari baat yi bi ci njëkk mooy fàttali muhaadara bi ne bi ngay lim njaboote alaaji Babacar sa xel dafa fattu ci suñuy maam soxna Awa Caam nga xam ne moo jur bàjjan ñas mi nekkoon fii ci tëngéej kon nga yokk ko ci baax bi euh, gannaaw loolu ñu ngi ndokkeel ñëpp gannaaw gërëmaande yi nga xam ne Cheikh Abdallah def na ko te doyoon na ñu ngi sof ci gërëmaande yooyu suñu gërëmaande ak suñu yàlla ndax lii nga wax Cheikh Ahmadou Boucar ci Alaaji Babacar tey leçon la yoo xam ne ñun ndaw ñi xëj na réeré woon nañ ko ci moom waaye ñu sant yàlla bu baax bi nga xamee ne yéen jël ngeen teraanga ji teg ko ci tuddee euh, ko ko ñu def ci baax si bu am solo bii doyoon na ko rek ne tey jii jëf jël na njabootam yépp jox ko ci Ibrahima Niass ci ak kóolute na kon loolu tax na ba ni nga ko waxee yàlla dimbale na leen ba nga xam ne ñoom itam loolu taxul leen ñu sànq gisuñ njuréel gi mukk taalibe rek lañ gis taalibe boobu mooy dem tey ba teraanga ji ñu mën ñu ko defal fii ci digg Dakar ñu ñëw ànd ak mbooleem njaboot gi kon mënuma guddal wax ji dama leen di gërëm rek dama leen di gërëm ñoom ñëpp góor ak jigéen ci itte bi nga xam ne def nañ ko ci bés bañ commencé tur yi ba léegi ñoom ñëpp ku ci nekk dangaa bàyyi sa waxtu bàyyi say guddi bàyyi say bëccëg pour taxaw ci bés bi ngir mu nekk bés bu rafet et ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu suñu rakk Cheikh Moustapha nga xam ne moo féetee fii Dakar ñu ngi koy jagleel ngërëm ndax njaboot gi yegsee fii Dakar lépp lu ci aju moo ko itteewu loolu danañ ko ci gërëm danañ ko ci sant uti ñu ñëpp. njaboot gi mënoon nañoo ëpp lii tey waaye da ngeen xam ne dañoo am ñaari xew bés bii dafa mel ni dafa sax Alaaji Babacar lool ndax tey jii mooy ñaari Alaaji Usmaan ca mbitéen waal kon ñenn njaboot gi foofu leen dem man mii sax falaa xëy ba julli fa subaar ñaanal leen yàlla dal di jógee fa ñëw kon loolu yëpp li muy tekki mooy Alaaji Babacar am na ngërmande moom Alaaji Abdoulaye Niass ay doomam itam am nañu ngërmande Cheikh Ibrahim Niass loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax di leen gërëmaa di leen santaat ci cër bi am na teraanga boo xam ne indi nañ ko yaakaar naa ne ma euh, président Mala war ngaa mën a jege si pour ñu teg ko ci sa loxo teraanga ji nga xam ne mu ngeen indi wala dafa mel ni suñu bàyyi Cheikh Mouhamadou Makki moo ñëw nii kon euh, nga jege si ñu mën koo teg sa loxo Ay, galera! autorités yi ñëw nañ fi wax nañ euh, ki nga xam ne mooy secrétaire général Thiam di sëñ Ousmane Thiam tontu na euh, ki nga xam ne moo ñi organisé di waa Ansaar bi nga xam ne ñoo jël gàmmu bi yëpp tànn la jox la ko euh, jël nañ kàddu ci turu président Maro moo ko jël sant ñëpp waaye fi ñu fekk. gaa Gambie itam ñoo wax ci turu mboolem délégation étranger yi nga xam ne yaa ngi fekk ci pare bi Cheikh Ahmad Bokk ba sa bàyyi Alxaaji Babacar tuddee Cheikh Ahmad Boucar def ci conférence euh, ki nga xam ne mooy Xaaja euh, Bouba moom lañ joxoon parole waaye sëñ Moustapha li nga wax ci Cheikh Ibrahim sëñ Moustapha suma doomu bàyyi dafa wax ci baay ak yonent bi mu ne ko yaa may fàttali la gannaaw ba laajoon baay daf ko laaj na ko dina yónni kiiraay suñu askan ci yonent bi ak deret bañ xam ñun loolu lu may lan gisuñu ko ci Cheikh Ahmed Tidiane mais suñ problème yow Cheikh Ibrahim yaay kan ci ñoom ñaar Cheikh Ibrahim ne ko soo amee ñaari kaas te mënuñoo ñàkk a bokk ci benn kaas waxuma ne da nga am bu leen ëpp de waaye il faut que nga am buñ teg kon yaa ko tuddee nekk Fass sa papa tuddee ko coobare ji sëriñ bi fi ñu toll rek pour jox la sa jotaay mooy gannaaw bu sous-préfet ak commissaire pare ba sëñ Ousmane euh, secrétaire général sëñ Ousmane Thiam dafa am benn kóllëre boo xam ne muy ministère de finance daf yebal ñaari ndaw. yow xam ne muy Babacar Gueye ak Khadim Gadiaga euh, taxawu nañ taxawaay bi taxawaay bu bu bu fees ñooñu day foog ñu ndokkee leen bu baax a baax leen bu baax baax te yaakaar naa ne ñoom danañ nangu ne gannaaw kàddu autorité yi nga xam ne ñoo fi ñëwoon te ëmbaale leen bokk na ci seen cër ñoom ñu si leen. su lu ñuy itam seen taxawaay bi nga xam ne fés na te ki nga xam ne mooy président Mballo ak mboolem ansaaru diin ñoom ñëpp rafetlu nañ ko kon gannaaw sëriñ bi teew na fi mu nekk nii pare yi wax nañ joxe nañ seen teraanga waaye c'est Mballo ki nga xam mooy président Mballo dafa wax ne moom ak secrétaire général dañoo wax ne nañ gërëm délégation bi nga xam ne ah d'accord délégation bi nga xam ne ñooñu jóge ko ci ndigalu sëñ Baye Alxaaji Ousseynou te mbooleem famille bi yëpp nekk ci représenté wu ci góor ak jigéen ñooñu daf ñu ngi di gërëm ngërëm na loo xam ne amul ab ndax ni ko waxee ci Moustapha mi nga xam ne moom ngeen teg ne nañ taxawaay bi ñaari weer yi yëpp bañ ko tuddee ba léegi lépp luñ jàpp jàpp nañ ci fuñ toll toll nañ ci kon gannaaw sëriñ bi agsi na borom jotaay bi agsi na dañuy jox Cheikh Ibrahim mu joxe teraanga suñ paree nag duñ mën a def dara lu mooy dugg nag ci li nga xam ne mooy tànniatu bi suñu bàyyi di suñu sëriñ Cheikh Mouhamadul Makki Ibrahima ko ndokkeel ci guddi gii nga xam ne moo ko yàgg taxawee te ñëw taxawee ko tey ci yoon wi léegi bi may ñëw jógee Kaolack dafa am xaatir bu ma dikkal parce que démb ba ñuy préparé di ñëw fii fekk ñu am ñaari xew benn bi mbitte yéen benn bi fii bi ma waxee sama rakk yi ne leen man damay xëy dem bitti toog ko ba subaar ma door a ñëw Dakar ñu ne ma loolu doo ko man dangay sonn trop bi ma ñëw ci yoon wi am ku ma ci àndal ma ne ko est-ce que Pape mu ne ma waaw ma ne ko xam nga ñun dañuy ñu a ngi ma ne démb damay so damay sonn ma defee ñaari voyage yi. xoolal kii fi mu jógee ñëw taxawu gàmmu gi mu tegal ma ci ne ma dégg naa dafay demaat bu pare kon dañuy dellu si rek ci lu suñ bàyyi alaaji Abdoulaye waxoon ne li leen bàyyi waxoon imsaxu imsaxu kalimata raaxa min qaamusikum maanaam na ngeen génnee baatu noppalu ci seen nu jiit yéen kon euh, duñu guddal wax ji yow lañ doon xaar nga egsi njaboote El Hadj Babacar ci suñu njiital suñu bàyyi El Hadj Ousseynou nañ teraanga ju rëy joo xam ne góor ak jigéen ñépp ko ñëpp ci barkeelam ñëw pour jox ko ñii nga xam ne ñoo jagleel tur yi suñu maam suñu bàyyi El Hadj Ousseynou ñoom bu ñëwee ba egsi boo teewee teraanga ju ñu teg ko sa loxo nga tegal ko ko ci loxol waa daayira bi. nga xam ne xeeb nañ ko lool waaye njaboot gi yëpp ñoo ko bokk dajale ko sonn ci lool itteewoo koy dem bismillah sëñ Ousmane Ousmane. jege jege ji waaye Seydi ñi ngi ndokkeelaat waa kër Mame El Hadj Babacar di ndokkeel gi di ndokkeel bi di ndokkeel Cheikh Mouhamadoul Ibrahim waaye maa loo may na ngi yóbbante bàyyi na riñ chapeau ci baayam seen ngërmaande ci taxawaay bi ak ni nga représenté sëriñ bi ci Dakar Cheikh Mouhamadoul euh, Mahdi mi ngi taxaw yuraatubul mawqif jërëjëf macha allah jërëjëf jërëjëf Seydi Seydi Mouhamadoul Macky Ibrahim euh, tey fàttali nga ñu li sa baay daan wax naan alawtu lbihaara zaxiraat wa innani alawtu lqura walmudna bal ha jibaala arumu rida albaari li nusrati diinihi wa ubrizu liljiil ljadidi misaala bàyyi nee na joxe nga exemple bi te yaa ngi naawee nii aw ma am na fu lay nekk ci Europe wax dëgg yàlla ñu bëri foogoon nañ ne ña fa nekk ñëpp am gànt ña fa nekk ñëpp am programme fii foogoon nañ ne dañ ca parce que euh, waaye bi nga gisee ne lii sas la woo xam ne foto foto moom du tàggale laaxam ci noppam waaye loolu beneen léeb la waaye euh, doomee euh, bàyyi moom mu sonn ci yonent bi ak tàntal li ñu la sax li nga xam ne mooy nopp waaye xol yi ñooy déglu kon bismillah الله اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما ولق والخاتم لما سبقنا صراط وعادينا صراطك المستقيم آله حق الإقرار وذاك في تاجي بين الجبين ويزن التعيد جمد وإن كان من لا يكون كامل نظاما للحق أو كان ولدي غرب عليه بالنبوة خادم من الله برهان الرشد وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمسين ملزم الرشد وشق له من اسمه برجل له أبو العاصم محمود ولا محمد قصد فيه ناخذ الأتباع منتجرا بالبدر كبد جلال ليلة الظلم وفي أطافه أوسع بردته ما يعلم الله من دينه بالكرم إن رسول الله السيف يصدع بي مهند المسيو في لا يمسر وابيض يستوفى بوجهه ثمار يتامعي اسود لعامل يلوذ به هناك من ال هاشم ومنهم في نعمة الفاضل لا منعت نصرى في نبيهم واحكم بما شئت ما فيه واحتكمي وانزل الى ذاته ما شئت من شرف وانزل الى قدري ما شئت من علم ان فضل رسول الله ليس له أدن غير وأنهم ناظر مثلي لو ناسبت قدره آيات غيرهم أن يكون الهداء دار سلمي لو يمدحنا بما فعل قلبي حسنا لنا قلم نتور نيمي أي الورى ثم لا فليس يرى للقرب الواحد في غير منتهي كشمس تظهر بعينين من نور صغيرة تملك كل طرف الأرض وكيف يمكن في الدنيا حقيقته وهم نيام تسأل وعنه بالبارد هو غنائم في أنه بشر وأنه خير خلق لا يكليمي ومقر غنائم في أنه بشر وأنه خير خلق لا يكليمي من ذا الذي مسافة ومن له الحسنى فقط محمد هذا الذي عليه يعرف محمد بشر لا كبشر بل هو كرياق دفع محيا محمد بشر لا كبشر بل هو كرياق دفع

ترضيك وترضي وترضى بأنا وعن والدنا يا رب العالمين لي سعادة من الزين أقدامهم فوق الجبال إلا لم أكن منهم قليل بحبهم الزنيا وبجاي طيب لنا شفايا واخدم لنا بخيريا ولا لنا رب سوى فليعطوا ربي بمهدي شفيعي بالمنتقل بديع أمر يا ممري لمن حكي سخيعي منطق يا بديعي أبي بها مؤمري خيرنا من على على السماوات العلى بإذن ربي العلي بمدحتي سفيعي بالمنطق لا بديعي أهوي بها من أمري أنا بشار الولي شر المولى وسعدي شر النبي أحمدي ودعائي لمدخلي شفيعي موت يا بديعي أمي بها شارف فرحي شرب بها مبترقي وفخرنا والمرحي شر النبي إلا بضليل ودعائي لمدحتي شفيعي بالمنطق يا بديعي أمي بها شر الفلاح والسرور شر به سلام مشتق بين شهور متوج كالليل تهنئة ربيعي بمدحته شفيعي موطئي يا بديعي بمن خطي سبيعي بمن تكلا من ربي سلطك والشهدين تقبلي أتوني إلى الخطي سفيعي بالمنطق يا بديعي أبريد يا محمد أهلا بشار المصطفى صفوة كل مصطفى وخير عبد قد صفى من ملك ومرسلين تحية ربيعي إلى الخطي سفيعي بالمنطق يا بديعي أبريد يا محمد خير خلقي شر جميع خلقي شر عظيم خلقي في محكم نزلي يا طاعتي بمنهجي شريعي بالمنطق يا بديعي أبلغ يا محمد الذي أظهره إله واختاره من حبي خيره عند اقتضاء الأجر يا طاعتي لمن خبي سبيعي متجاب ديعي أغلبيا شلبي مسافات ومن له الحسن فقط عليهم بالهبات بكل دور متلي تبرئة ربيعي بمن خبي سفيعي بالمنطق يا بنحمتي سفيعي الحمد لله بديعي أقم يا ورقيا بمدحدي سفيري بمنطق لا بديع أوليها وعلامات من عجاب أمينة حين نصب سببة سلو الطلب بسجة تيري ورقيا بمدحدي سفيري بمنطق لا بديع أوليها النسور كما ترى القصر في وحل الكسوب بسبب جدلي يطوع بمن حديث في عيب تجلى يا مقدي من خير رسلي تبيعته ربيعي وخفي صبيعي ومن خلال ريعي بها ولدته شيطاني جرى عظيم شاني من اوضح البراني يا عظم ما ديبت لي العيش نوارا لمن حوى الفخر لمن زين أدوار لمن هدي شفيعي لمن تزيل بديعي أبلي بها من مشارك إنسان مولد خير إنسان قدوة آل إحسان وكامل مكملين أدوار لمن حقي شفيعي لمن تزيل بديعي شفاعتي شفيعي بالمنطق البديع امر يا محمد بملحقي شفيعي محمد يا ربيعي امر يا محمد يمر ليل قربه وفضل حب ربي وبرضاه الامر بمدحني سفيري منتخلا بديعي أبغي بها محمدي بالحسنى واجعلي الحسنى للمطر الأسنى مع رفيقنا الضليل أدعو بمدحني سفيري منتخلا بديعي أبغي بها وكلنا ولياه وناصرا خفيا لا نطشي لوياه بجاي عبدك العليم هيئة ربي مدخل لي سبسري بمنطق البديع صلى الله وسلم إلى علي أفضل الصلاة ما دامكم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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الداعين ومن تبع بإحسانهم إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوب مولانا أبي العباس سيدي أحمد التجاني وعن سائر خلفائه وعلى رأسهم شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الشيخ إبراهيم يس رضي الله تعالى عنه ونفعنا ببركاته آمين mbokki lislaam mbokki yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki jullit mbokki faydatu Cheikh Ibrahim nga xam ne ay tur yoo xam ne yëpp dañ koy bànneexoo rek asmaa'un lan tazidu ma'rifatan wa innamaa nazatan katabnaa wala qulnaa ay tur yoo xam ne dañ koy bànneex boo ci wax rek benn la soo waxee lislaam mooy mooy mooy tariqa bi soo waxee tariqa bi mooy fayda bi soo waxee fayda bi ñoom ñëpp leen dëkk mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass bi kon nag ñu ngi leen di ci turu xalifa Cheikh Ahmad Tidiane ak mbooleem ay ay kàngam ñu ñëw fii tey ci bisab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci bisab avril bi nga xam ne ñaar fukki fan yi mooy juddu yonent bi sallallahu alayhi ci weeru tubaab nekke itam ba tey fukk ak juróom yi mooy juddu ba mu doyee waaye commencement yonent bi yonent bi amut commencement ndax yàlla tëjali bu njëkk ba moom rek la woon moo taxoon kenn gisu ko amul benn seede mooy kaynaa bu njëkk ba amul asar waaye te jëli ñaar bi mooy bi mu defee yonent yàlla Muhammad mu alayhi wa sallam muy nga xam ne jëmmi yàlla yi rek fi nekkoon ba bëggee lu fi nekka ak moom amul feneen fu mu koy jëlee lu may ci boppam mu jël ci boppam def ko muy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy xaqiqatu Muhammad yee booba nga xam ne ci la Baay di wax ne nuuruhu awwalu wujudu wujudan wa huwa aslul usuli wal anbiyaa leer ga fa nekkoon faqee ko ca yàlla ñëw doon jëm ñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci suñ biir mu ne yàlla bëgg nañu ndax suñu yónnee woon malaaka wala mooy li ñu leneen dem dañuy ñu ñàkk a topp mu def ñu ni comme tey ngi téewee ibaada ñu ñun ñëpp waaye dafa jël ci boppam def ko muy sangi yonent yi muy sangi tànnal ko gën ci diine yi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéenay gën xeet yi nga xam ne gën ci xeet ne ko doomu aadama tànnal leen yonent yi nga xam ne mooy sang yonent yi sayyidul anbiyaa wal mursaliin tànnal ñu diine ji nga xam ne moom la yàlla ak ñoom ñëpp ci lañ doon jëlee par ba diine ji ñëwee dara mënatu la mu ne inna diina inda islam moom moo ko indiwoon ci bisab tey bii ci weeru avril mu daal di ñëw juddu ñëw ci àddina bi bi mu ci ñëwee gannaaw juróom fukki at gannaaw juróom benn fukki ak ñett mu daal di uyu boromam tasaare wala ñu wattu bàyyi yu diine ji nga xam ne mu ne taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu abadan bàyyi naa leen bu boo xam ne su ngeen ko bàyyiwul su ngeen ci jàppoon du ngeen mukk ñu ko may yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu bu ñu jàpp teg suñ fukki loxo mu nekk kitaabullahi wa sunnatu rasuli téere bi yàlla bi nga xam ne mooy la nga xam ne mooy wax yi ba jaaree ci Jibril Jibril Amin ñëw ci yonent yàlla Muhammad sallallahu mooy firi fànce bi ndax li téere bi wax rek ne mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su waxee sharia su santaane sharia la su teree sax sharia su noppee sax sharia ndax amul droit yu ci loo xam ne yàlla daf ne ko mu wax ci kooku nag moo fi mu ñëw dajale lii yëpp comme nit la te nit comme dañ ko bëgg mu niru nit moo tax mu niru niru nit ñëw ci jëmm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaw ma ci beneen jëmm la ñëwaat ñëw na ci ay jëmm yu bëri yu concerné waaye bu jógee dañuy gën a concerné mooy jëmmi Mawlana Cheikh Ibrahim xam ne moom itam yonent bi ci ci rabiye la woon fukk ñaar ci la ci la judd ci bisu anniversaire ci la uj ji boromam Mawlana Cheikh Laay moom itam fukki fan ak juróom ci rajab ci la judd fukki fan ak juróom ci ci la uj ji kenn ku nekk te ndeke demoo yonent bi mooy zahir ji waaye bàyyi mooy baatin bi ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom-ñeenti weer yi nga xam ne def na ko ci biir ndeyam dafay doon bi mu amee fu juróom ak ñaar ci la doon yeeloon mu fay loolu tax moo daan naan Cheikh Laay ne hanii'an li Ibrahima laaha hilaaluhu hilaalun badaa linaaziriina jamaaluhu maa ngi ndokkee Ibrahima ndax weeram terul ñu ne kon moom moo daan naan Cheikh Laay ñun ñu foogoon ne ab kii euh, rajab mooy sa rajab mooy sa rek compte leen li ko dalee ci rajab ba ci kii mooy fukki mooy juróom-ñeenti weer yi nga ba daana wax ne urus ngalam su nekkee lu ci fa ci ci juróom-ñeenti la doon uusu ngelaw lu pire kon nag nëbb euh, nëbb boobu mooy Mawlana Cheikh Ibrahim fay bi mooy yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey dañuy yëpp avril di judd yonent bi avril di judd Mawlana Cheikh Ibrahim kon nag maa ngi leen di ndokkeel di leen andi nuyoo boo xam ne mën nga jógee ca xalifa Cheikh Ahmed Tidiane ak mboolem ay rakkam ak Sayida Fatimata Zahra ak mboolem ay rakkam ci ñi def Cheikh Mouhamadul Mahi ak imam Chatiane Ali Cissé ñoom ñëpp tey su ñëwee am mbooloo bu bëri nga bëgg dem ñu yëngal àddina ci ca Mauritanie ñu foog ne foofu la am ñu ñu yëngal ko ci Nigéria ñu foog ne Nigéria suñ ko xaajalee ñaar xaalis ba dana wàññeeku nekk dafay gën la bàyyi xam ne woo maratan uxra taraw naa jëloon nekk ko ñu ko gën a tasaaroo mu demee fii xam nga ne benn kayit benn kayit yi cinq mille soo ko weccee ko fukki kayit yi cinq mille franc fukki cinq cinq cinq cent franc moo tax moo tax na Cheikh Raye su fekkoon ne dafa am limite suñ ko defee benn place dootu fay keneen am na ku doon wax sax ne li tax doom yi bàyyi tànn dem dem Kaduna man dinañ ci ñëwete damaa gis ne mbooloo mi yëpp amu jaalan jëpp te su ñëwee duñ ko gis fekk kenn waaye gis nañu ajab ba góornóor ba ci boppam moo ne ba mu juddoo ba tey waxut moom mooy góornóor yi këram ne waaye waxut ba mu juddoo waxut ba mu demee waxut ba mu ca coupe du monde waaye mu ne ba mu juddoo mu indi loolu kon leer na ñi nga xam ne dañ doon wax naan montage la te feeñaay bu njëkk ba mu feeñaat beneen yoon ñu ne ah lii kat mi ngi bëgg a doon mi ngi mi ngi bëgg a niru dëgg mu xaajal ñaar yoon waaye suñ ko xaajal fukki bi wallahu maa saabiriin démb ca Nouakchott ca Mauritanie taalibe bàyyi yëkkati nañ bopp yi jëm nga xam ne foofu demoon xam ne demam bu demam ba mujjee dem naag Cheikh bi doomi Seydi Hadji doomi Mawlud Fall mi nga xam ne mooy Mawlud Fall booba ngeen xam nga xam ne moom moo indi secteur bi jëlee ko te Cheikh Ahmed Tidiane yow kilifaan ja njëkk Mawlana Cheikh Ibrahim ñii ñoo doon sëriñu waa Sénégal ak ñu dund waa Sénégal waaye nag ndeketewoo yàlla su la bëggee leeral leer gi lu mu leer rek du la du la gërëmal moo tax ñoom lañ amee woon mënoon na leen gërëmal ñu ne loolu doy na waaye bañ gisee lañ amee yëpp Cheikh Ahmed Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh Cheikh kii Cheikh Khane dafa wax yéen bàyyi dafa jox ma ndigal mu ne ko loolu nga andi woon jox naa la ci ndigal loolu nga jëloon ci sa noonu ak sa naa nga xam ne kon kooku mooy borom ndigal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kon nag suñ toogee fii xamuñ bàyyi la ñuy fàttaliku wala yonent bi la ñuy fàttaliku wala ñoom ñaar waaye loo ci wax rek muy loolu kon nag ci bisab yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci fii ci daaru Quran bi nga xam ne Cheikh Mariama toujours Sénégal war nañoo seetaan affaire yi suñ teyee soo demee lu bokki ku dëkk Sénégal ku dëkk Sénégal su génnee fii ci frontière Mali wala frontière Mauritanie su ko neexee mu teg carte d'identité mu doy na ko rek mu wax ne Cheikh Ibrahima Niass mooy paasam mooy hôtelam mooy mooy teraanga maanaam Tijaan yi dafa toog ci tàkkusaan ñenn si kar ajo mu gis benn toog cëpp ca ca ca bunti diwaan yi ñii mu dugg sax ndax mi ngi sol ñetti abdu am am mu ne oo leen nga kële ne mu ne man mu mu ne ko ñu ne ne yow la mu ne ko toogal daal di ñëw mu ne ne dajale leen ko mu ne ko waaye nag dama foog ne maa jaawale dama bañ ñu ngi nekk ci erreur man bokkuma ci waa Kër Baay Ñas mu ne ko mu ñi nga sool tam dëkk Kër Baay moom laay teral ci yow kon kooku mooy bi wala ba Cheikh Laye jant bi ku ne nga taxaw ba nga nekk fekkee jant baa ngi ci digg njëriñu tool kenn ku ne dana foole sa bi sa bopp bi mooy milieu bi yow la tiim fekk ñëpp la tiim Mawlana Cheikh Laye la illa rahmatan lil alamin indi ma lu may nga ñëw indi yéen maa ne ci mboolem mbindaa yi bàyyi mu ne su ko neexoon ndax yusuf ne kay gannaaw ci ne képp ku bind ku ku mbindee rek mucc ci yërmaande yooyu kon nag suñ ko xamee bëgg ko topp ko am bis boo xam ne dañ koo tëral dañ koo tuddee ci kër ak alquran boo xam ne Cheikh xaadimatul quran moom moo jël defam moo jël place bi def ko fii mu ne capital yi Mawlana Cheikh Ibrahim nit ñi dañuy wax gàmmu jëppal waaye su suñ ne xam ne jëppal dafay waaye jëppal la jógu fii la Mawlana Cheikh Ibrahim waxoon bañ indee dund bu bëri fekk mbir yooyu dañoo xiifoon bañ fa toxalee dara nekk woon mooy ay ndew nit ñi dañ naan def ay pax di gis lu tënk ku dee ku ku gis néew xëy na sax mu ne ku ku ku riñ ci sama rënk bi booba ci loolu lañ doon nekkee booba ñi nga xam ne ñoo doon a bàyyi def tànk ci leen ñëw fekk si ko suñ ñëwee ka wax yalwaani sax suñ xamee ne ñii la duñ leen sarax bàyyi leen bis dana ñëw mbali ci médina yi tax nit mën a ñëw sol ci bugg ñu ñëw lekk ba benn bis nag xaw ma fu wërsëg jógee ñu ñëw gaare ak fekk boobu am na leen dëkk ñi fi dëkk bëgg ñuy wàcce di wàcce ba jant bi so ñu ñaan ñaan ci jumaa yi ngir yàlla ñëw ñëw leen ñëw leen jàpp leen ni loolu borom loolu dafa ko nga jëbi dafa ko nga def yàlla ni gis nga di def waxtu wu ñu wàccee bu mut fukki saako rek ne yóbbul kër diw yóbbul kër diw da nga teewul daal dugg ci ci kër bañ toogee ba ca suba sa ñu xëy jigéen ñi bëgg nañ bëgg a natt nekk tey dara bëgg dem li ceeb daa leen wër moo taxaw ñu wuñ mu waxuñ ko waaye tey bi ñëwee ba dëkk bi yëpp daj nekk benn saako dugg ci kër baay Seyda Aïcha mooy yaayu seen amat yal na yàlla yokk leeram mu jël ay seede bàyyi am di jaam ci la bokk mu ne ko ñees dañoo bëgg ñun loo amul amuñ ci soxla yow rek lañu yaakaar waaye su dara ñëwatee

yónni daal dellu si jàkk ja fekk doon def ko yónni bi ñetti fanam yi nii muy ot def mu ne ko su fekkee ne yaa ngi gis lii man faalewuma mu ne ko su fekkee ne li neex na mu ne ko ñii yërëm leen bàyyi ne ak bëri yërmaande moom ci moom sallallahu alayhi wa ba mu demee Taayif yàllaa ma yónni te man yéen laa am yéen yéenay ne ko li ngay su fekkee yàllaa la yónni ñun tuuti nañ wax ak yow su fekkee yàlla yónni wu ñu boole ko xale yi ñu koy sànni ay xeer. ba tànk bi di naaj deret yonent bi su su wàccee ci dal yaramam tuuri ci suuf rek ñu ne alal te moom ñëw pour pour alal nit waaye dafa ñëw pour yërmande muy jël deret di ko as di ko éegal ci kaw mu ne mu ne yàlla ñii dañ maa xamoon suñ xamoon li ma leen andil duñ ma def nii wala su fekkee naroo jubal naroo leen a jubal sax mën naa am seen ngir ñëw tamit dinañ taxawal di leen islam génne ci. bàyyi mu ne ak bëri yërmaane emut ci baaxal leen daf leen a layal emut ci layal leen mu ñaanal leen waaye bàyyi tam ni nga ko waxee mu ne mu ne mu ne Seyda Aïcha mu ne ko baax baax na dégg naa li nga ba mu yàgg mu ne ko waaye maa ngi gëjël ci ki bi ne benn pepp génnut kër gi kër gee rek te boobu nga xam kër gee rek kon nag suñ toogee ba daal alxuraan jokkaloo ak jëppal ba tey ñuy wax fii jëppal te fii ñun taalibaay ko tuddee jëppal ma ne kon loolu sant yàlla si barkeem barkeem weer wii nga xam ne moo ñu indil yow li mu ñu indil moo daana Cheikh Baye yemu te loolu de julli nga xam ne moom mooy symbole l'islam ci weer weer weer weeru rajab bii ci la ko yàlla la la bi mu uutee mboolem yonent yi yonent yëpp ku yàlla daan yónni dafay yëg xaatif mooy xaatif mooy kàddu mooy yëg te doo gis yëpp wala mu waasita mu waasita mooy malaaka boo xam ne Moussa ji ëpp lu mu dégg te ay kàddu rek la doon dégg bu mu ko déggee la tëm ci tasaaro mu daal di moom yàlla yë dafa yónni Jibril mu indi warwaayu tuburaan de mu daal di war ci bët ba fu mu dal wéewa dal fa mu dal ci asamaan njëkk Baytul Maqdis la jëkk dem daal di rañaanee fa. dem ca kaw dem ba asamaan jibril ne ko ba juróom-ñaar asamaan jibril ne ko sax mu jiraama leen mu ne ko ay jibril kuy ànd sa xarit ci yoon tukki mu tiis mi nga di ko bàyyi moom kenn mu ne ko juróom-ñaar fukki junney pay ci kanam yoo xam ne su ci jaaree demee ni cum góor di la mu ne fuus di romb di romb ba dara

ba yonent bi dem baytu maqdis googu nga xam ne diine yi jiitoon ci lañ daan jublu ba yonent bi léegi bi ko yàlla yónnee es foofu la doon jublu waaye ci rajab bii la ko yàlla xam ne donc foo wëlli woon ñu ne béykatalal masjid al haram mu daal di taxu jël jub jublu ci kaaba bi mu selo kon weer wi da koy yàgg nañoo indil teraanga kon suñ dajee ci weer wi li ci gën a tuuti mooy Sénégal bi am ci indépendance muy feetu Sénégal di feeti réew mi di feeti àddina bi ku ko yëg ak ku ko yëg comme ñun ñi ko yëg maa leen di dokkeel yéen yàlla di ñaanal Cheikh yàlla may ko wér yàlla may ko jàmm parce jigéen la joo xam ne dafa def la bàyyi waxoon ayyuhal banaatu zaahimna ilaa naylil hudaa amal bi abdaani falaa mu ne mu ne jigéen ñi rëj rëj loolu leen ak góor ñi waxuñu rëj rëj loolu yaram de waaye dañuy dañuy dañuy ittee lañu wax itte jooja moo tax fii tooy da daara alxuraan ay nit yu jógee fu nekk ci àddina bi ñëw nañ fi tari alxuraan te ma nga ñu ngi ñu ngi mel ne mel rek su fekkoon ne ndimbal su fekkoon ne ndimbal ñun ci ci doomu aadama la ñu ko yaakaar kon dana ñaan ndimbal waaye ki ñu ko yaakaar kooku mooy sëdd kum sëdd nga am kum sëdd doo am tar mooy Mawlana Cheikh Laye waaye léeg-léeg waxtu wu nit ñi séddale keneen séddale mën naa ñàkk waaye si yàlla séddale kenn du ci jiitu alhamdulilah ci loolu ñu ngi leen di ndokkeel di ndokkeel ansaaru diin ansaaru diin ci jamono yi Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane xalifa ci ittee boo xam ne bàyyi bu yàgg la ko woon mu juróom fukki at ca ginnaaw la ko waxoon waaye bi mu ba toll ci jal bi itteem bu njëkk mooy delloo ansaar bi soo demee fu nekk fu nekk mi ngi mel ni waaye ni bàyyi tëral tëraloon sa bi